Madison démb de mardi itali tribune yéene kaay ne dañ ne woon bomba fa doon waaj a kalaate de ndeke nekkul dëgg allahu akbar ma ne la lu ci tolloo juróom benn waxtu yoo xam ne waaw mbir ma daal coow la mel ni tulleeg ma lee te coow loo lee commissaire Ablaye Diop da koo dëggal waaw te loolee lépp ma nga jollee nag kon ci am wootem téléphone boo xam ne ca France ga la daal di jógee waaw ñu xam le ne daal maanaam bomb kon lañ teg ca hôtel Radisson googee allahu akbar le populaire ne waaye yow ndekete mbir ma nekkul dëgg wala boo am sabotage la laas ne ña nga xam ne kon ñooy liggéey nag googee waaw nee nañu kon ay mbirum faxastalak seen wujjuyee la de mar taali le populaire ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali ma la waa GIGN waa bib xaj yooyee nga xam ni kon xencu rek la def waaw élément wa armée bi RG sapeur pompier ma ne la kon lëmbat nañu wër nañu kon hôtel baak lu ko war yëpp libération yéene kaay ne kaay nag ma ñamal la sax ka nga xam ni kon moom moo doon woote lu mu doon wax da doon xam le ne kon ma ne la bomb bi kon dana explosé a a waaye ji waa ji day waaw yàqal na kon hôtel bi dëgg sax le la hôtel ba ñaari téeméer ak fukki néeg ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yëpp waaw ña fa nekkoon génnee nañ leen kon ca mbedd ma ba day waaw France ke la jóge waaw ma ne la waa dig day ubbi nañ ca kon enquête enquête ba nag kon ca ña nga xam la dee commissaire Cheikh naa kay taa ci la def xam ni kon kenn mënu koo la nag boo xasee am rek am na kon horreur la horreur la eh, commissaire bi ne matukaay yi xam ne daal moom la ñu jëloon keroog waaw naas dara kon baaxu ca mar di taali waaw waaye intérieur ja woon yamu ca ndaxte nee na gis nga fanweeri fan ak benn ci weeru juillet gii ñu ni la eh, di àjjuma waaw Sénégal ci boppam kon moo wax Sénégal a wax du waa université déedéet Sénégal ci boppam kon moo wax lan nekk la Sénégal ko université kon Sénégal a wax Macky Sall ci boppam nag mënul woon a xaar leneen lu dul loolee dal université ay xeer commissaire bi ne waaw Macky mënuloon xaar leneen lu dul loolee dal ko kon ca université moom Macky Sall daal fi mu nekk ni la moom moo war a jubbantiku changer mu teg kon ci loxol sénégalais yi lée ko defulee bu demee ca Colobane la ko dal université doo nga koy dal bu la ko dal université kese moo koy dal commissaire Cheikh na Keita la wax sénégalais yee ko weddi marti itali commissaire bi ne yàgg na diggante Macky Sall ci boppam laa lay wax ni le ak nit ñi nit ñee ko weddi awa ñaa testeur APR assemblée nationale ca yéene waa PDS ci boppam laa lay nii waaw ñoo nekk ci ginnaaw song yi nga xam ne kon song nañ ko président ci université commissaire Kayta ne ko kon déggoo ma de déggoo ma de ma la diggante askanuk Sénégal ak président Macky daa yàqu tas na tasar sëy ba tas il y a un divorce très entre le peuple et le président Macky Sall la diggante bee jeex te étudiants yi nga xam ne nag xam le nañu ne danañ leen kon looloo tax nag ba opposition bi di waaw ñaar fukki fan benn kon ci weeru ut gilee danañu wàcc ci mbedd mi de aa termine yéene kaay ne waa PDS day la ñuy sàkku waaw mooy étudiants yi nga xam ne kon teg nañ leen loxo ci lu tegul fenn nañ leen bàyyi ñu ñibbi bu ñu sukkandikoo ci Omar Sarr ak ñamu àndal waaw nee nañu Macky Sall daal toroxal gi nga xam ne kon moom lañ ko toroxal kon ca université gae bam na tot humilier ko moo tax mu jàpp yi Sud Quotidien ne PDS day waaw fi mu nekk ni lay ma ñoom Papa Diop Ablaye Baldé ak Souleymane Ndéné Ndiaye ak ñeneen waaw waaye tamit ñu tere leen kon tukki ñeen ca ñoom xeex bi am seen biir parti bi ne nañu ko soppi ak duñ gi nga xam ne kon leen koy tiital ne danañ jàpp ci ñoom tëj leen ci kaso bi la ginnaaw Karim Wade ak Maître El Hadji Amadou Sall Mamadou Lamine Massaly Toussaint Manga PDS day fi mu nekk ni waaw seen xale nag la gars di tongal gonay jàngale kool waaw waaw ma ne la police bi kon université googee waaw yenn ci ay étudiant bu dee ña ngay sàkku nag kon ñu baal seen naataango xale yi lee jéggal leen am na ca ñenn ñoo xam ne day nee nañ bu leen kenn jéggal que si soit faite na jaar yoon ngir étudiants yi kon mën cee jëlee ab laa laas pétition ba day ay da moo njëkkati ko ay da moo njëkkati na ko waaw waaw ngir Karim Wade kon ñu génnee ko ca kaso ba ay da mboot la mu bëgg daal lu ci tolloo fukki million ak ñaar ci ay sénégalais daal di signé kon kayitam googee pétition la ay la soxla la ko tijjee ne kay ne kon teg loxo bi nga xam ne ne teg na nañ ko loxo Karim Wade te jaarul yoon arbitraire moom la ñoom Aïda Mbodj kon bëgg a saafara le populaire ne bu ñu sukkandikoo ci Aïda Mbodj waaw Karim Wade nee na soxlawul benn yoon Macky Sall di ko baal soxlawu ko la mu soxla daal mooy yoon na def liggéeyam Aïda Mbodj ci grand place ne Karim Wade daa war a kon ci kaso bi te gis nga ñii nag amatuñu benn yoon ils n'ont plus le choix Karim Wade dana génn de am nañ yaakaar nag ne suba ci alxamis nañ ne saax dugal seen biir poos maa la ko wax ay ba day ñoom Aboubacry Rado Babacar waa société civile bi daal ñëwoon nañu grand place de waa PDS kay taxawal nañ benn comité de guerrier maître Amadou nekk ca kaw ci tribune yéene kaay ne gis nga nguuru Sall gi daal boo leen gisee muy doxalee nii du dara lu dul nëbb am tëleem dañoo tële seeni carence la ñuy nëbb laa lay wax ni lée te gis nga débat bi sax nekkul foofu quoi ne débat bi du loolee xam nga la la dund ku tar gi nga xam ne kon moom la sénégalais di dund ni Sall Sall na ci jublu ak nguur gi le loolooy coow li loolooy débat bi débat bi coow li kay laas de waa Sénélec day waaw nee nañu danañ coupé courant yi la ilaha illallah la ilaha illallah ah maa la ko wax ma ne la semaine bi altine ji ñu génn wutali samedi day département yi nekk ci Dakar gépp waa Sénélec nee nañ leen bu yeboo ngeen préparé parce que courant bi dañ koy bëgg di coupé mu waay <laughs> alaaji rek ne ñun moom tàmm nañ bàmmeel te deewaguñ lëndam geeg tàngoor gi ah moo tax ma naan la alaaji